Euh, xale ma ngi doon tudd Khady Cheikh Khady Diouf depuis bi mu nekkee xale dañ ko jox sama jabaru mag Moustapha Ngom moom moo ko mën naa ne boobu ay set ans la am moom boobu ba léegi moo ko yar presque fi ne ni war naa am quinze à seize ans entre foofu la nekk ci intervalle boobu la nekk. bon d' les informations yi ma dafa am bon non jëkkër dem ci daal lañ ko mujjee gis euh, ni def euh, daañu ñëwoo suñu waa kër ni xarit dem fanaan si woon ci suba la ñëwoo ni gis nañ ko corps bi ñu daal koy euh, hôpital euh, ginnaaw daal la xel dañ wax côté Kër foofu nag daaw daaw faral di dem parce que yaayam euh, fii fii la nekk à côté donc daaw faral di dem na sûrement gars yi ko def loolu rek ñoo ko jëlee prince prince daal koy branché foofu corps bi quoi mais daaw fa bari bari foofu ay tànk dem ci guddi dem ci guddi la mujjee génn ci kër gi waaw xam naa sûrement ay vers vingt une heures vingt deux heures yooyu lay doon parce que maa ngi dégg ñu ni corps vers vingt euh, vers une du matin gis nañ corps bi waaw maa ngi gis maa information quoi voilà merci bien. sécurité tamit ci la insécurité ci la parce que tamit euh, gis nañ ni rey yi bari na trop donc je pense que état bi su fekkee mën nañoo dimbali gën a renforcer sécurité bi parce que tamit euh, nit ñi seen seen kaaraange yaakaar na moo moo gën lépp quoi donc maa ngi lancer un appel solennel au président de la République M. Macky Sall à ce que nous sécurité parce que nous trop trop trop trop Sénégal. la parce que bi ma ñëwee tamit dégg naa li xew ci bi mais damaa def tekk di di déglu bi ma dégloo tamit dégg ñu ne xale lan fi rey aw ma ci lu leer nañ waxuma ci soriwuma ci mais demal naa sama bopp ba hôpital régional ci margu bi ñuy bil ma turaale ma xool gis ko xam ne moom la mais fi mu toll nii ki ko rey ak ki ko reyul mënoo koo xam lépp yàlla la leer suñu borom en tout cas ñun ay mbokk lan ay julli lan dañ ciy wax daa wax liñ xam dem na nag moom man dem naa ba gis ko faatu na kenn mënu ci dara li koy def mooy ñaanal ko yàlla yërëm ko te xaaru quatorze ans quinze ans ci ay atam waaw xale bu ndaw la koy